salaamaaleykum salaamaaleykum sunu mbokk yi nga xamante ne ni ñu ngi ñuy topp di seetaan étoile jamono yëpp tey ñu ngi waat fii ci port Joal Fadiouth ñëw rek ci li nga xamante ni mooy beneen numéro ci Joal Actu bu ñu nee Joal Actu nag ñu ngi wax ci actualité ci li nga xamante ni nii foofu la tolluwaayu réew mi toll ak tolluwaayu li nga xamante ne nii mooy liggéey bi nga xam ne moom la ñu nekk fii ci port Joal tey nag ñu ñëw fii bëgg na dugg ci biir por bi rek laaj mag yi ñi nga xamante ni ñoo ñu jiitu ci port bi ci wàllu liggéey bu njëkk ba ak liggéey bi nga xamante ni nii moo am léegi nii ci wàllu jën bi jublu ci rek nak ak defar ak ñaax ñi nga xamanteni ni ñoo dess ci liggéey bi tay ji ta muy xalé yi nga xamanteni ni ñoo nekk ci liggéey bi tamang mag ñi jitu wul leen ci liggéey bi ñu fasiyene rek fexé ñu leen redresser delo wat leen rek bañuy doxé na mag ñi doon doxé parce que japp nañ ni mag ñi nañu doon doxé mo gëna baax kat ñi nga xamni la xalé yi doxé ndax jamono ji lepp ngi ni gañi ta dara doyul kon ñëwaat nañ nak ci benen numéro tay ji di dalal ko xamanteni ni ci port bi lañ ko fekk muy suñu baye nak bok ci baye yi nga xamanteni yag nañ ci bir port bi lol lol lol wa di jaajeufal nak ñepp ko xamni rek yaangi seetaan étoile jamono di leen wax ne di leen seetaan site bi bu baax a baax nag tey abone soxla nañ ci loolu bu baax a baax jaa ngeen jëf. kon comme ni ñu leen ko waxee rek ñu waat fii ci biir port bi rek taxaw ak sunu baay boo xamante ne nii moom it wax dëgg yàlla bokk na ci ñi nga xamante ni magi démb ñi lañ bu ñu nee magi démb ñi demin bu njëkk fekk na ko fii ba ci demin bu mujj bi. te comme nit ñi tënkee liggéey bi rek di wax ni maanaam liggéey bu jëk ba ak liggéey bu mujj bi nañ ko gattal rek dal ni demin bu jëk ba ak demin bu mujj bi tey ñu taxaw ak suñu baay bo xamni nak yag na fi ci tefes gi ñukoy wax wax mi mam mbub tay ñu lay laaj rek bàyyi nan nga jàngé liggéey bi jamono ji ñu toll ni ni ci xalé yi nekk ak maggi demb nan la géré won liggéey bi waaw maa ngi nuyu ñëpp salaamaaleykum nuyoo lislaam muy salaamaaleykum wa rahmatullahi taala barakatu leng ma laaj dinaa ci wax fi sama xam-xam toll mooy liggéey bu njëkk ba ak liggéeyu léegi bi Sidi liggéey bu njëkk ba ak boobu tey bi bokkuñu waaye na nit si démb ak magam nit yi tey dañoo dañoo xaw a waroon nag waroon nañu ndax liggéey bu njëkk ba booy seet boo war a jën gën a bari boo war jën gën a bari lool waaye boo jën jërut ndax boo yooyu jamono ñun dem nañ bay jënd aw bër sax juróom-ñaar juróom-ñaar juróom-ñaar fukki dërëm te léegi bari nga jënd juróom-ñaar fukki dërëm yaa ngi ko ay cent quarante mille cent cinquante mille kon liggéey bu njëkk ba ak boobu léegi mënuñoo bokk waaye gune mag i kay démb yi ak gune tey nag dañoo bokkut jën léegi la gën a développé waaye léegi la liggéey bi gën a rafet ci xale yi rek ndax dañoo bokkul génération bokkuñu ay jamono bu njëkk da bokk ak sa moroom baana baana ak yàlla gaal gi teer nekk ci dëkk bi nga jënd ko bala moo ñëw nga dem galaase ko waaye loolu amatul ci léegi liggéey xale yi léegi yi nga ñoo gën a civilisé aw liggéeyin ñun yéen gëna gën a ab liggéey ni nga gën a civilisé ab liggéey moo di yow fi lay ci ba xam fi ak fi laa tourné nga bokkoog say nawlé nga dem dang mhm. soxla dafa la nga dem dang mhm. bo ñëwé gaag gi sa ginnaaw luñ ci am bo ñëw sa cër di ko fekk mhm. amuloon mu jëk mais ci biir loolu nga xamanteni ni dafa melni luñu lu tracé parce que gone yi tay ni ñi liggéey ci tanki mag ña ci lañ top jeun yi ña ko doon yanu bu ñëk ñoo koy yanu lañ ko doon appel bu njëkk muy caisse gi loolu lañ koy yanul te mu melni ni lepp lañu la ta dara doyul ndax tey koo dégg ma ngay jàmbat kees gi feesul ma ngay jàmbat jënd ñetti kees yi jën jaay ko ñaari kees muy wàllum perdal tey te yéen ja jamono yooyu noonu yaakaar naa bu ngeen mosaan a jënd juróom-ñaar fukki pañe bu ngeen xafee di ngeen ko glacé juróom-ñett fukki pañe léegi manquement boobu noonu lan moo ko indi te tet yi ko doon liggéey ba léegi ñi ko ne di ko liggéey. manquement bi di ko indi yomb naa xam si di. Mhm. bu jëkka demuñ bépp li fi nekk ay oto jën matul fukk mhm. léegi liggéey bi moo saturé ñi ko bëgg a bari loo bañ sa morom nangu ngir bëgg am loolu moo waral si moo indi manquement yi fekkee ne yow da ngaa bëgg ñu nangam la ñuy jaayee yow nga ne mënu ma loolu sa morom moon man mën naa ko loolu mooy indi manquement yi siidi liggéey bi jën dafa gën a manqué nag jën dafa manqué de. dafa manqué mais tey boo doon waxaat gone yi di leen ñaax taxawin yi wan ban taxawin la war doon ban taxawaay. waaw taxawaay bi mooy ba ci njëkk mooy gëm sa bopp gëm yàlla mel sàkk xam ni wërsëg mën naa guddee alwaay dafa fanaan doylu it ci la bokk jiital ngor ci liggéey bi ci la bokk waaye dafa bari ñoo xam ne bii daanaka liggéey bi am rek lañ gën a jiital nag ca am baax na lool waaye rafetal xanaa na nga xool amin wax amin mat naa sédd ku ci doylu daal di nga jot sa waaye liggéey bi moom li gën a indi satare bi mooy liggéey bi bu doon juróomi doon liggéey léegi juróomi téeméer lay liggéey fukk doon jënd jën léegi junne jënd jën kenn ku ne bëgg il faut liggéey bi satare loolu rek moo indi satarement bi jërëjëf papa ñu lay jaajëfal bu baax a baax kon mi ngi noonu kàddu yu am solo yooyu noonu kon ndaw ñi ñu déggandoo ko kenn ku ci ne rek xam nga xam li nga xamante ni nii moo la fal ba ngay góor góorgóorlu rek ci loo xamante ni ku la ci fekk du la yedd liggéey bi ñun ñoo ci des ñun ndaw ñi kon ñun ñoo ko mën a defaraat li laay war a suuli gars nañ bàyyi perdal bi jënd juróom jaay ñaar nañ ko bàyyi jaajaf kon ñu ñëwaat rek comme ci li nga xamante ni moom lañ leen doon wax léegi rek muy Joal Actu bu ñu nee Joal di wax ci actualité actualité nag weesuwul tey béréb bi nga xam ne foofu lañ ñëw muy port Joal Fadiouth fekk fi ay mag yoo xamante ni mag yu yàgg ak ñun lañ ci tafas gi mag ñoo xam ni mag yi démb lañu woon ba tey liggéey bi fekk leen ku nekk gis yàqu-yàqu yu liggéey bi ak jafe yi nga xamante ni moom la mareyeur di jànkonteel tey nag ñu ñëw certifié suñu baay boo xam ni baay Ñaaw Jóob lañ koy wax mu yàgg lool ci tefes gi ñu bëggoon koo laaj rek euh, bàyyi ñaaw maanaam jowaale démb ak jowaale tey suñ ne jowaale dëmb ak jowaale tey mën nañ koo tënk ci demin bu njëkk ba ak demin bu léegi bàyyi ñaaw ginnaaw bi nga nuyoon naka nga gisee liggéeyub démb bi ak liggéeyub tey jii. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu li ma ci xam nag dinaa la ko wax booba pañab yaabay ñetti téeméer ñeenti téeméer la daan jar nu koy yanu booba ak jamono léegi ji bokkul boba ba yanu ba wacc ñeent ñeent fukki dërëm la ñu joon sàmm da fay dinu jox añak reer dinu jox añak reer boba sumaare fala la fa la reere sumaare waaye liggéey ak bu jekk ba bokul jiwalu gi legi por bi bo ci ne dejj kess lu mat ñaar fukki nit lay wër te ñaar fukki nit yoy kenn jëndu ci jën ñu ci bari dañuy yaq dong ñu bari boobu dañuy yàq dong te li jënduñuy jën. waaye mais kilifteef nga xamante ni wax nga ko léegi parce que nee nga daan ngeen liggéeyal alaaj Njool Samb cay jamonoom nga xam ni ñooñu ay mag lañu woon yu fi nekkoon alaaj Njool Samb alaaj Sangone bay muy mag ñoo xam ni wax dëgg yàlla duñ def lu dul di leen ñaanal rek fa ñu nekk gënal leen fi nga xam ni foofu lañ jógee ci liggéey bi tey jii maanaam yéen bi ngeen di liggéey ñoom dafa mel ni da ngeen a nangoon ak kilifteef tey léegi lan moo tax liggéeyloo gone yombul ci période bii ñu toll nii ba gone yi ñëw ci tefes gi rek di doxe noo xam ne ni bokkul ak ni xamante ne noonu la sarti liggéey bi tegoo. waaw boo jamono boobaa léegi bokkul gone yi léegi pour nga liggéeyloo leen yombul. ndax a oto boo ko gaaree fii sax. gone yi ba dañoo yëg ci kaw am na ci gone yi dañ la naan la muy fay. Mm-hmm. wala ñu ni kii du fay. Mm-hmm. coow la bari. jamono ak legui boba nak nun kilifa boba nun andano am kilifa mhm. ndax boba bu njoot sàmb xeye kim ni bolel mhm. ci mom la ni andal du neew lu mu wax mom la ni def mhm. lu mu waxul duñu ko def bu neew bu neew bu wacc jotee mu ni wacc leen waye legui ci gonay legui bo leen non wacc leen dañuy lànk duñu laaj duñu wacc wàcc la legge liggéeyub dara mais ci bir loolu yon euh, fi ngeen doon yobu jeeni muy marché Touba marché Kaolack marché Dakar ba léegi yaakaar naa ni gone yi mujjee liggéey bi foofu la ñu koy yóbbu mais lan moo indi jënd juróomi keesi jën dem jaay ñetti keesi jën perdal lañ ko tuddee xaw ma perdal moom yóbbu na turam perte ba pare lan moo indi loolu. perdal li ko indi booba gone yi de groupe sagal. boo gisee loolu groupe sagal moo indi perdal bi. gone yi dañoo xëy dem fépp ànd ak wut oto. mbooloo bokk ko te yooyu jamono mboolooy bokk oto. waaye nag ñoo bokk liggéey bi ñoom ñëpp bu ñu wàccee kenn ku ne am ca la am. moo indil moo indi boo ko gisee ñu naa groupe sagal loolu moo indi groupe sagal mhm. booba yooyu jamono moo indi moo indi groupe sagal mais léegi ku ko bëgg dindi ci liggéey bi ci yoon yoon la ñu war a mën a jaar ba perdal jóg ci liggéey bi ni ñuy jënde keesug jën ci tefas gi ñu koy jaaye jaayewaat keesug jën ci marché bi a ah, léegi ba jën da ngay genn kees da nga koy def ñetti ñaari ñetti kees da nga koy def juróom ñeenti ñetti kees mhm. booba moom lay léegi moom la ñuy def keesug jën nun booba kees kees la ñuy kees gu ne dañ koy duyat ba kees kees la ñuy def booba yooyu jamono keesu jën mosuñu koo perdal kees kees la ñuy def keesu jën kees lañ koy def waaye léegi si nak kees da ngay jënd kees def ca juróomi juróomi kees ngay jënd def ko juróom benni kees loolu lan moo ko waral loolu lu indi loolu ah, loolu groupe sagal yi ñoo ko fi indi nag bu ñu waxantee dëgg oto yi groupe sagal ñoo ko fi indi ak ci Boy Gueye ci Mbour mo fi jëk indi mo fi jëk indi perdal ci jiwalu gi ma wax la lool Boy Gueye bu Mbour Boy Gueye Thiès moo jëkk a indi perdal mo jëk a duy ay kees kees yu fees diko ko di ko perdal ko moo ko jëkk a indi mais ñom période bobu jamono yoy biñ koy def dañ ci doon gis ndariñ wala luñ ci jublu won boba dañ boba boba dañ dañ ci indi ay ciow rek kon na maa gën a fees kees bu ma jëme day jéxal kédu jéxal jeexal hmm. loolu lañ ko dugaloo mo indi mo indi perdal bi mais perdal li mu yàq ci liggéey bi bari na de. moo yàq liggéey bi booba ku perdalu moo indi perdal ba léegi léegi da ngay duy oto ba mu fees perdal perdal cinquante quinze mbaa quatre vingt pièces man oto liggéey jaanu yàlla yi ñuy yàpp oto bu ci ne day perdal quatre vingt panier te booba perdal amul léegi ci liggéey bi. tey daal gone yi nga xam ni ñoo nekk ci liggéey bi di nap nabi nga xam ni jamono jii fi mu ne lépp nga ni gàññi te dara doyul tey soo amoon loo leen di ñaax muy say doom yu ci nekk ak say sët. ban message nga am boo leen di jàllale boo xam ne loolu la ñu war a taxawee ci liggéey bi ak période bi nga xam ne nii foofu la liggéey bi toll tey. période bi gonay gonay ñoo war a changé liggéey bi ndax ñoo ci toll nun toll nun passé nañ ko waaye gonay seen liggéey bi ñoom dañ dañ koy xeexoo dañuy jaayante doole. gaal da ngay gis ñu gaal ñëw ñu sóobante ko. kii ni ñaar ñaar fukk kii fanweer. te yooya jamono boobu amul. dañ daat bokk gaal gaal teer ñu bokk ko làgg làggal ko. jënd ko jaay ko booba kenn du soobante léegi nag dañuy fab ga oto so di soobante jën yi léegi loolu moo indi affaire bi léegi. gis nañu beneen taxawaay ci ñoom muy léegi am nañ nu ñu jaxasoo ak yi ba fi mu ne mënatoo xàmmee baana baana ako mool te bu njëkk da ngay xam ni kii mool la kii borom gaal la baana baana bii baana baana la mais léegi daanaka mool yi xam nañ la xew ca marché ba. baana baana yi xam nañ la xew ci géej gi ba daanaka ñoom jaxasoo nañ ba kenn ku ci ne rek daa mel ni sa mbubbum morom nga sol loolu lu ko def. waaw ah, loolu loolu moo indi wax ji moo ndi yëf yi léegi sa gaal balaa teer di nga bu gaal gi ne dee ci kees mool bi day taxaw ni la jën yaa ngi jar nangam te booba mool xamu ko woon ki ne suuf. mooy wax mool ba ca biir géej ni ko jën yaa ngi jar nangam. boo gisee gaal léeg-léeg gaal gi ñëw mool yi lànk ni duñ jaay jën yi loolu la da ngay dikk ko jën yaa ngi jar nangam te. mool mool ba dikk ni la jën yaa ngi jar nangam nga koy waxaale. mool ba bañ moo indi loolu moo indi affaire boobu. kon mu ngi noonu kooku nga xamante ni moom lañ doon waxtaanal léegi mooy sunu bàyyi ñaaw jóg nga dégg kàddu yu am solo yi mu wax fii léegi nii nga xam ni wax na ko ci liggéey ba départ ba ba fi ñu toll nii tembe ñoom ñu ay mag yoo xamante ni ni mag ñu yàgg ci tefes gi lañ xam nga tey ku doon yanu pañe jamono yooyu liggéey ba wàcc ñu lay fay ñeen fukki dërëm loolu doy na waar période bii ñu toll nii yanukat yaa ngi yanu ñu leen di fay kees gu nekk téeméer ak kees gu nekk juróom-ñett fukk kon mu mel ni loolu liggéey bi am na ci ak wuute bu baax a baax a baax a baax a baax ba tax na kon li ñu waxoon léegi la ñuy waxaat rek ndaw yi nga xam ne ñoo dese liggéey bi nan xool na mag ña doon dem bu ñu jéem cee dox tey jii pour redramer waat liggéey bi ndax période bii kat lépp a ngi ni gaañ waaye dara doyut kenn ku ci nekk xam na ni kenn jëndul juróomi saaku ceeb di ko jaay ñaari saaku kenn jëndul juróomi mburu di ko jaay benn mburu kon lan moo tax ñu taxaw di jënd juróomi keesi jën di ko jaay ñetti keesi jën kon loolu war naa mën a dakk ñu jéem a dekkalaat liggéey bi toppaat liggéey bi xamit ni sunu borom moo ñu sàkk ñun ñëpp te gëmmul nelawul mi ngi nuy gis ba tax na lu ci waay ne rek nga fexe jubal rek lépp loo xam ne mi ngi ci liggéey bi te bokku ci rek ñu def loolu pour génn ko ci étoile jamono la moo ñëwoon fii tey ji ci port Joal Fadiouth doon waxtaan ak magi tefas gi ñu leen di jaajëfal bu baax a baax jërë ngeen jëf